bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu taala ala sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa xadiimihi wa sallama tasliiman alhamdulillaahi l-kariim septembre 1895 di bés bu mbindeef dootul fàtte ndax mooy bés bi Cheikh Ahmadou Bamba jàkkaarloo wi ak conseil privé ba ca Ndar ci ab procès fa ñu dogalee génnam réew mi jëm Gabon. balaa procès bi di am ñoom jëloon nañ décision ne dañuy condamner Sëñ tuba exilé ko wala rey ko wala et cetera lu ci bëri fekk na boobu suñ borom moom dogal na li muy dogal ba eggal exil bi moo gën ci moom parce que exil bi. ci la amee wéetaay gi mu bëggoon a am pour mën a jaamu boromam liggéeyal yonte bi alayhi salaatu wasalaam alors bi procès weesu nag ñu def ko ci train bi moom la ñuy wax gaal jéeri train bi jógee donc Saint-Louis wul si fi sirri wal jahri yakunu muhtada ndakaaru nag barab bu ñuy woowee jamono ji kër Santhiam la dal ay wuute nag am na ci ba muy dem géej la fa dal ñeneen ñi ne ba mu dellusee li wóor daal mooy sëriñ bi newoon na fa yéen a ngi ci kër Santhiam soo dégg ñu naan kër Santhiam borom kër gi mu ngi tudd Abdoulaye Thiam Abdoulaye Thiam la tudd moo fi daraloon Serigne Touba fii ci biir bu mu ko dalalee fii ci biir mu am na mu def ak Serigne Touba sëñ Tuubaa kontaan ci moom lool tuddee ko sang bi caam moom mi ngi tudd Abdoulaye Thiam sëñ Tuubaa tuddee ko sang bi Thiam gars yi xamuñu tur bi ñu koy woowee Jean Thiam fii mooy kër Serigne Touba di kër euh, euh, kër Mam Sang maire yi naan ko Mam Sang sëñ Touba nag néegam ñu ngi woon fii ci biir mu fi nekkee euh, sang Thiam dalal ko Alaaji Malik ñëw ne fekk ko fi Cheikh Sidiya Baba fekk ko fi néegam mi ngi ci biir jàkk ju mu doon jullee mi ngi nii ci biir waxtu julli jot na sëñ Touba dem ci jàkk ji alaaji Malick dugg Cheikh Sidiya Baba dugg ku ci nekk naan sa morom jiital sëñ Touba ne alaaji Malick jiital alaaji Malick ne ko jiital Cheikh Sidiya sëñ Touba ne ko jiital mu ne ko jiital sëñ tubaa jàpp loxo alaaji Malick te ci kanam moo jiite fii amul feneen lu am ci kër gi amul fen kër sëriñ bii nag kër sang caam bii moo ko jur kër sang caam jàkkaarloog fi ñuy dippee kër sëriñ bi nee ñu fa la daan jullee julli juróom tey def nañ ko ab jàkk ju taaru doonte rëyul trop ci nuñ ko tabaxee. waaw fii de mooy moom lañuy ñuy maanaam ci ni ko nasaraan bi kii muy 70 avenue Blaise Diagne di kër gi nga xam ne mooy kër euh, sëriñ tubaa gi nga xam ne bi ñu indee sëñ bi fii ngir mu tàmb ngir muy tàmbali ji liggéey boobee euh, dañ ko yóbbuwoon ci kër gi nga xam ne moom lañ jàkkaarloon muy kër Sathiam boo génnee mu ngay jàkkaarlool. biñ koy indee foofu nga xam ne foofu lañ ko garde woon yàlla def fii booba xam naa euh, demewuta nii mu demee ab àll la woon sëñ bii def buñ ko téyee foofu ba waxtu julli jot mu daal di jóg jéggi ñëw ba jàkka ji nu toog fi la daan ñëw jullee waxtu juróom bu jullee ba noppi delluwaat toog fañ ko toog la woon ba waxtu jotaat mu ñëwaat julliwaat noonu la fi daan def. sàncaam gi moom euh, boo xoolee sax dafa jàkkaarloo crédit foncier. maanaam biir crédit foncier mais dafa jàkkaarloo ak sëñ Tuubaa googu li ko waral mooy daan jéggi mbedd mi booba nekkuloon tali jéggi ko dem ba fëri ci genn garab mu fay beru di jaam yàlla ndax fëri nit ñi dañ daan bari di ko wër booba diggante bi xawoon na xëcc ndeke foofu nag sëñ Modou Sa mujj na moom ko ba mujj bi mu làqoo sëñ Mbàkke mat na doon ko ba ñu ngi koy defaraat ko euh, nett nañ ci soirée ne am na xam naa ay mbind yu mu fi jot a def ci comme noonu muy nga xam la daan ba nga xam ne daal moom bi mu demee ba war a delluwaat yëg na ne am na fii lu mu fi def loo xam ne lu rëy la ba tax mu xemmeem lool barab bi bi mu ko xemmeemee nag bi mu demee ba euh, sëñ Moudou Moustapha ki nga xam ne mooy ab taawam ci yooyu jamono moom la santan ko barab boobee def naa fa loo xam ne na fexe ba jot ci. kër gi kër Serigne la wax na ni bi mu fi jógee di tukki fii la bawoo dem ci tukki bi. bi mu ñibbisee mu wax sëriñ Modou Moustapha ni ko pakk boobee ma daa yendu defal naa leen fa loo xam ne bu mu leen raw ca la say ca la sëñ Modou Moustapha saytoo pakk bi ba jot ci. ndax am na xel moom ba nga xam ne dama bi mu njëkkee bi mu ko waxee ne daa soxla barab bi dañ koo proposé woon ne dañ la koy may waaye mu xam ne may moom ci wàllu nguur bu amee mën nañoo dem ba yeneen jamono keneen ñëw xëy na am leneen lu mu wax lu bokkut ak may googu man jaay ni yeneen jafe-jafe mu ne daal ak nuñ ma ko mën a jaay nañ ma ko jaay rek jaagee ma gënal daal ñu waxaale bu jubóog moom njëg giñ jubó woon sax biñ demee ñoom ba xam ne kat kii li li maanaam dafa bëgg ak bëggam ci barab bi rëy na Eh, ñoom am na luñ dolliwaat ci li nga xam ne moom lañ ko njëkkoon wax ci njëg googa waaye sëñ bi nangu ko ñu meetar kon ni am nañ ko ko mën a jaay daal ñu jaay ko ko ci njëg goo xam ne njëg bu wér la nga xam ne moom ak moomee la ma. kere bi pàkk bi noppee itam dafa wax ni def na ko kërug taalibe yi kërug jullit yi daal di wax ni képp ku ne asadoon laa ilaha illa asadu anna muhammad rasulullah yaag Modou Moussa yéen fi wàcc bi yemoo benn wàccuwaay muy pàkk boo xam ne bu barkeel la ba ba njariñ lool ndax boo dee xool waxuma Sénégal waaye Afrique ku ci tumuranke boo ñëwee fii te di jullit am nga sañ sañu ne fi ba sa itemat wala nga gindiku doog a dem fa la fa la jug wali sawi diini bi jaayu ñu toxalee capitalu AOF indi ko Dakar pourtant Gorée dafa tuuti di Gorée tuute <coughs> ñu dellu si ñu ñu gen si boppam ne dafay ñibbi Saint-Louis gouverneur général ne ko comme yaay son bras ah yaay su def sama interprète yëpp yaay sama yore sama liggéey mënoo dem Saint-Louis bàyyi ma fi moo ko kon moom naa la defal koo xam ni sa pare lay doon yaa koy moom ah? pour recevoir tous les chefs coutumiers mu ne ko demal tànn mu ñëw fii tànn fi pourtant fii y avait rien dara amul ci dëkk suñu ko jaayee palais de la république boobu temps ay charpentier moo fa ne di defar mat xar matt yi di jox gaalu Corse gaalu Corse yi ñoo doon def ay Gambie Sierra Leone yooyu dëkk ñu dajale woon ñu fi nekk ñëpp muy kilifa katolik yi ak kilifa diine yi ak Serigne Touba nga xam ne boobu ñu naan croix Légion d'honneur ñu war ko ko takkal dégg naa si kër gi lañ ko bëgg a takkale fii kër gi si li ma dégg mag ñi wax ma ko te ñooñu fi am na ñu fekk ko te seen maam lañ ko wax naan man garaat yi ma yàlla takkal doy na ma nañ ko takk sëñ ma sàmba dégg naa si kër gi la loolu moom sa 1990 la ma ko nett fii ne fii la nekk bi nekk bi waaw da ngeen ko da ngeen ko gis gis nga si ginnaaw fii hmm? foofu moo doon tool bi tool boo xam ne moom da daan toggee lépp ci kër da daan bàyyi lépp mu daaw ñu dem bu ñu jënd ñuy wuti sa fii lépp ngi fi woon ba sëñ bi ci boppam moo daan dal fële laan yenn ci tool bi bu yenn ci tool bi ah, bu ngoonee mu ñëw daaw wéete kenn Euh, danni sëñ Touba ñii danni bi mu dem si géej gi la fi jaar ñii ni bi mu jógee si géej gi la fi jaar ñu ñaari version yoo xam ni am na différence tuuti waaye ñun bi ñu jàpp daal mooy bi mu jógee si géej gi ñëw nu fii si kër gi ndax dégg naa si mag ñi ma ko fekk woon nee na ma booba dañ fee dajalee ñi nga xam ñoo ne ko Burkina mooy jamono Ouad Watta ak yooyu dëkk ñu dajale woon ñu fi nekk ñëpp muy kilifa catholique yi ak kilifa diine yi ak Serigne Touba nga xam ne boobu ñu naan croix légion d'honneur ñu waroon ko koo takkal dégg naa si kër gi lañ ko bëgg a takkale fii si kër gi si li ma dégg mag ñi wax ma ko te ñooñu am na ñu fekk nañ ko te ko wax bam naan man garaat yi ma yàlla takkal doy na ma nañ ko takk sëñ ma sàmba dégg naa si kër gii la nee na mu jóge fii dem Njaareem nee na sëñ Balla Coro la fekk laaj ko ni ko dama bëgg indi Serigne Touba fii si Ndakaar mu ne ko loolu day amoo si sañ waaye danaa la boole koo xam ne danaa ko ko wax muy sëñ Modou Moustapha ndax moom la tuddee rasulullah sallallahu alayhi wa lu mu ko ñaan dana ko ko may ndax dégg naa si yenn xasaay bi sëñ Tuubaa boobu dafa waatoon ne du ñëw ndakaaru wala mbaaba garaas jàpp mu béy bi nag mi ngi naan asbunallahu mi naan mbaaba garaas xaw ma ndakaaru maa ngi koy dégg loolu maa ngi koy bàyyi xel mokkalu ma ko nag bu baax waaye loolu moom leer na ma mag ñi nettali na ma si ay mag ñoo xam gaynde faat bu musaan ñëw fii fii kaaw la fii ci suuf su musaan ñëw jigéen ñi daw làqatu yaa ngi dégg professeur Sakhir Thiam benn fii ci kër gi la juddoo montagne bi ngeen gis nii fii moo ko fi def su musaan toog day jël tameem càmbar am or dem jëndi ay bouquin ba tey mu doon tey lu mu doon doon professeur moo ko liggéeyal boppam ndeyam tudd Nguru Njaay donc ñun ay xale lañu waaye am na lu war lu ñu xam ci kër gi fii lu fi am amul fenn ndax am na ñoo xam ne bu ñu xamoon tey ne sëñ Touba fi la newoon ñu defe naa ne pousse nañ fi bu yàgg ndax sëñ Touba def na fi lu ne nekk étape bu particulière mooy bi mu ñëwee euh, ci la aussi bu ndaxataal yi tàmbali ci kaw Lat Joor ak bi mu ñëwee barab bi ñu ko dugal buux ko fa euh, te xaju fa sax fekk li ko jiitu sax boole woon nañ ko ak euh, naku soxor woowu fii ci buntu port bi boobu ba demee ba léegi sax barab bi nga xam ne fa la jaar di génn ci école bi wut si mbedd moom foofu boo demee gis mandarga bi alors loolu yëpp suñ borom musul ko ci fii ngeen di gis mooy école Immaculée école bi moo ne ci ginnaaw lii mooy porte bi wax nañu ne sëriñ bi fii lañ ko indi woon bi ñu koy laata embarqué ci gaal gi ci bunt bi itam lañ ko jaarale mu génn boobu fii ngeen taxaw tey wax nañ ne ndox la woon benn gaal bu ndaw lañ fi tegoon bi tubaab yi ñuy ci gaal boobu lañ ko dugal yóbbu ko gore ci gaal gu màgge embarqué ko loolu moo taxal bi ñu gëstoo ba suñu borom dogal ñu xam jëmmi barab bi nag ci lañ commencé di ko màggal ba ren ji ci la nekkoon fanweeri at ak juróom ci 2023 bi fu ñu ko fas yéene màggal chaque année 11 novembre bu nekk ñun fii la ñu màggalee maanaam ñibbisig sëriñ bi. sëriñ Touba nag ci tukkeem gu mag googee lépp luy xeetu métit teg nañ ko ko waaye bu ci ne dafa ànd ak boroomam muy wéttalam. dañu bari trop mais dinaa jël benn exemple. parce que duñ duñ ko topp day gudd mais dinaa jël benn exemple fi ko dugalee ci pour bi dañ ko dugalaale ak këyit yi mu doon bindee ak xalima gi ak daaji puus ko ci biir te fekk ay fani fani fan doon nañ def ay ay matt ci ci ci four bi ba dara lu ko lu ko jege rek tàng waxantuma la ak di ko laal lu ko laal lakk mais wax nañ ni te loolu bokk na sëñ Moussa Ka lim nettali biñ ko dugalee ci biir ba tëj sëñ bi yëgul tàngoor wi lu dul bi mu jëlee xalima gi dugal ko ci daaji pour am encre pour bind mu gis mu gis daaji xoot na ba wow bay saxar mu doog a yëg nag ni fii am na tàngaay boobu suñ borom mu ko musal parce que daaji ci ci ci ci ci pot bi mu nekk pot bi verre la te veer bi bu demee yëgu yëgu tàngaay ba ba bay saxar noonu waxantuma la ak yara yaramu nit waaye nag sëñ Tuubaa la suñ borom defal jagle melool ko noonu mu mel nga xam ne da nga naan du yonent ndax yonent yi mënul wàcc ginnaaw Muhammad waaye sëñ Tuubaa ëpp na wàlliyu donc suñ borom moo ko defal googu jagle loolu ci nattu yi la gas nañ ko aussi suul ba maasale ba sëkk ba dem toog di waxtaan gis ko ci geneen garab mu nekk di bind te loolu kenn musul am lu mel ne lu dul yonent yàlla Ibrahima mooy bi bi kon bi ko faraw firaw na ak ñi mu àndal euh, euh, Namrod sànni ci ci biir ci biir euh, fuur bi fekk booba sawara la suñ borom diggal sawara ne ko na nga soppi ko glace te bu lor eh, yont yont yont yàlla Ibrahima ndax glace gu glace mën naa jéggi da bay loree waaye dafa ne ko na nga nekk glace waaye bul ko lor donc euh, Serigne Touba day dellu si rek ci natt yooyu nga xam ne bi muy fasante couleur ak yant bi yont bi daf ne ko ñaari téeméeri nattu ak juróom ñett fukk ak juróom muy 285 danañ tegu sa koote natt bu nekk mën naa yóbbu bakkan doomu aadama mën naa yóbbu bakkan sax yonent ci la ko sëñ na ko man binduma sama bopp waaye ruugi lu mu attan sama jom attan na ko alors loolu benn la ak yeneen ak yeneen yeneen mos nañ koo euh, teg wéer ci garab aussi ba léegi nii am na vestige mooy ñii ñii dem Gabon ñu ngi koy gis garab gi ñu ko wéeroon euh, fukki soldaar ak ñaar ku nekk yor fetal euh, diir benn benn benn cër ci yaramam capitaine bi yore fetal aussi diir benn cër ba mu joxe ndigal tiré coup de fil yëpp dem na ñu ne tel de ñu gis poussière mais biñ paree bi poussière bi euh, bi biñ naan bi pënd bi wuree léegi ñoom ñëpp ñoo daanu ci suuf sëñ Tuubaa taxaw doyloo boromam loolu ci xar baax la alors kon daal si gàttal natt yooyu lañ ko teg yu bëree bëree bari bëri mais yooyu lañ ci nettali ba huit ans yu manqué tuuti donc sept ans sept mois ci niñ ko waxee mu yëg nag ne nattu bi jeex na suñ borom yëgal ko ko te foofu sam am na benn bés bu ma sa xëy defar euh, defar jël ay xeer defar lu mel ne jàkka bu na bu mu nar a julee ku ñu wax yëlli sëy nekkoon douanier comme agent douane bu ko fekke sëñ Tuubaa da ko wane ko kaay nekk sama seere fekk boobu euh, colon yi kenn da ci génn tasa dafa naan ba man nag tasaare jàkka ji dégg nga mi ngi tërëf daal ne ko fii doo fi julee ñun xamuñu lii lii du jàkka tasaare ko wéq sëñ Tuubaa ne tekk rek wax nañ ne xolom jógoon na waaye yonte bi ci saasi na ko déet yow sa xol bu mu jóg attan ñii attanuñ ko léegi nag yëlli sëy sëñ Tuba yëlli sëy bi mu taxawee sëñ Tuba daal ne ko euh, danaa la jël seere moom mujj na jël nekk témoin bi jumaay njaareem pare bañ ko inauguré mu ñëw njaareem sëñ Tuba ne ko lu ma la waxoon d'ailleurs sax moom la ñuy euh, biir njaareem am na quartier bu ñuy wax yëlli sëy moom lañ ko tuddee yëlli mooy Elimanel foofu la jógee alors loolu bokk ci xar baax yi parce que jumaay njaareem moo teg xeer wi moo ko moo ko rëdd teg xeer wi inauguré ko change boobu nag amu ko ci jumaay Touba parce que jumaay Touba bi ñuy teg xeer yi fekk na moomu làqu sëñ Modou Moussa moo teg xeer yi waaye nag suñ borom yëgaloon na ko ci Gabon biñ ko interdire mu julli foofu suñ borom yëgaloon na ko da nga am ñaari juma ci kaw suuf ngën ngaa new ñaari juma waaye léegi juma yi bari nañ dèjà Touba rek biir Touba rek da ngay wax ay juróom-ñetti fukki jumaa te koñ ba ne am na juma mais juma ju mag ji moom référence la ci àdduna bi mais xoolal waxuma Masaalikul Jinaan barki démb waa xoolal jumaay Poroxaan rek liggéey bu gaaw sax boo xam ne allah muy ñu jagleel ko sama jaar bu suñu Poroxaan. 1902 la bi dellu si ndakaaru jóge ca tukkeem gu mag googu ca Gabon la ville de Maceo mooy gaal gi ko indi bés boobu nag ay junniy taalibe ñoo dikkoon teeru ko ca port bu ndakaaru tukki gi nag saa su bés bu mu tollool ci at mi jegesee murit yi nekk ci àdduna bi yépp benn yitte rekk la ñuy am mooy waajal ko fas yéene ko màggal ni ko sëriñ bi bëggee ndax sëriñ bi moom dani nañ ko ñëw sant la yàlla mu liggéeyeen liggéey bu rëy nag kon bépp jullit buy dem Touba li sëriñ bi gën a bëgg mooy war may dëkk ba kenn ku dem ku ne na nga waajal sa bopp lépp loo xam ni nii war may dëkk ba la nga jëfe ko ne ko sëriñ bi bëggee bu toll rek ndax murid moom bu ñu xasee romb li ñuy wax euh, màggal gu njëkk gi nga xam ne mooy Aïsriina Muharram muy ñaar fukki fan ci weer bi ñu génn ni weer bi ñu nekk nii génn ci xëy na mën naa moom euh, li cate na waaye génn guñ ci waaye buñ ko xasee weesu rek bépp murit boo dem ci xolam yaakaar la ngay fekk moom mooy waajtaayu màggalu Tuuba noonu lañ ci toll nun ñi ñëpp daal fii ne amuñu jeneen yitte fi ne ju gën a rëy moom waaj màggalu Tuuba ak fas ku yeneen defe ni nga xam ne noonu la ko sëñ bi santaane te mooy maanaam euh, màggal ko ci li nga xam ne mooy sunna muy jàng alquran ak jàng xasaayit ak bernde ni mu ko santaanee rek daal incha allah bi daal fi nii nii ci wàccaayoo lan toll ñun ñëpp nag noo ci maase yam ak mboolem murit moom moom daanaka moom eh, ni ci murit yi mel daal li leen ci mel ñun ñëpp daal wax digal fi ne daal noonu ci wàccaay yi incha allah rabbi di ñaan yàlla yóbbu nu ci ak jàmm te nu defe ko ni nga xam ne noonu la ko sëñ bi ba defe ko noo xam ne dana koy sunu jor ci barki Seexul Xadiim وسلم تسليما